ñu jàllale ko donc s'il y a des au niveau de la presse euh, avec discrétion Aïcha jël question yi nga xam ne mooy les questions essentielles euh, yi nga xam ne bu président jàllalee message bi muy jàllale bu pare donc dinañu ko répondre donc président di lay bàyyi kàddu bi bàyyi la ak presse bi mu ko defee nga waxtaan ak ñoom si mbëbët bi nga xam ne moom nga leen foowee tey ci waxtaan ak sénégalais àdduna bi diaspora bi ñëpp jàkkaarloog yow tey donc ngeen tàcc ko tuuti rek boo ko defee mu am am na courage wax sax mais mu gën a am courage donc ku fi nekk rek nga tàccu le président Tahirou Sarr si courage bi nga xam ne am na ko pour woote li nga xam ne nii mooy conférence de presse bi. asalaamaaleykum. allo ñëwul hmm? allo c'est bon allo allo allo salaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ci seen teewaay ku nekk maa ngi lay nuyu si sa tur ak sa di nuyu maison de presse yi fi toog yëpp di nuyu tamit seen kilifa yi leen yebal euh, tey nag dama woote woon euh, point de presse bi pour am yenn leeral yi nga xam ne dafa tegu sama kaw te defe naa ñëpp xam nañ fan la jóge xëy na ki ko wax amul fitu tudd sama tur waaye Sénégal yëpp nee nañ man lay waxal baaxul ba tey c'est bon kon bii na dem bon allo c'est bon salaamaaleykum mbokk yi maa ni leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci sa tur ak sa sant maa ngi leen di gërëm ci seen teewaay di leen gërëm ci wuyu ci def maa ngi nuyu maison de presse di nuyu tamit seen kilifa yéen fi yebal euh, jotaay bi nag defe naa li ko waral yéen ñëpp xam ngeen ko euh, te ñëpp ñu ngi ko doon xaar donc euh, suite logique la rek ci élection législative yi am ay kàddu yoo xam ne wàcc na fi yu jara leeral yu jara tamit weddi ci yenn yi nag ki ko wax moom defe naa ñëpp xam nañ ko ki muy waxal tamit ñëpp xam nañ ko même si que amul fi tudd xëy na ki muy waxal mais man yàlla daf bindale ne su dëgg taxawee leneen lu ma mënti def lu dul dégg rek maanaam maa ngi ci safaan maanaam maa ngi ci fen te man du ma fenkat dama bëgg toog wax ak sénégalais yi lu leer ñu dégg ko sama der kenn du ko yàq may dund kenn du ma jiñ dara tant que maa ngi am sama baqen mën koo weddi wala mën koo xeex donc moo a jotaay bi moo tax ma ñëw toog ak yéen di waxtaan ak yéen te li may wax yëpp nag ci diine laa ko teg teguma ko ci naxi mbaay teguma ko ci ut lu lu neex euh, électorat teguma ko maanaam ci ut ay fans man dëgg tax may politique je suis l'un des rares hommes politiques yoo xamante ni kenn mësu koo vaar mësumaa wax loo xam ne dama cee delluwaat changé ko sama discours mësul changé te àla kulli aali du mës a changé na on va aller droit au di expliquer rek ne lenn moo waral coow li yëpp na démb gis naa sama mag Ousmane Sonko mu am nu mu waxee euh, wax bi nag dequ ma parce que toogoon naa deux émissions ne leen mi ngi subir pression bu mag pour génn nangu nangulu coowu carte de séjour yi loolu def naa wax naa ko ci émission Sen TV ak euh, Ndeye faatu Ndiaye wax naa ko tamit beneen sit su ma juumul sax def naa ko deux sites parce que dama xam li ne ci biir te dama xam pression bi muy dund mais tam xam naa tamit maanaam seen tiitaange ci élection yi xam nga lu gën a ñaaw mooy te mosul am Sénégal nag maanaam élection dem bay jeex benn candidat plagié programme beneen candidat te loolu am te tegul fenn lu dul maanaam ci bëgg. lu neex parce que da dem ba xam ne sa programme doyul Sénégalais yi nga ne ma ah déedéet damay teg sam programme jël programme bi ma jugé ne d' après les sondages moo doy Sénégalais yi moom laay utiliser te loolu nag moom maanaam nekkul lu dul lâcheté ci man ci lu ma ko jàngee parce que lu tax ma leen lâcheté la mooy ki ko def dama koo xeexal dama ko guddil dama koo bëccëgal dama ko sang ba mu set bañ koy tilimal ma solal ko yëre bu weex tàll di ko parfum tey moom moo toog bëgg ma jaxaseeg Sénégal bëgg ma jaxaseeg Afrique kon su jotee ma wax mooy que moom moo bëgg ma wax te dinaa wax incha allah rabbi et dans le respect ak war ma bu mu mérité xam nga avant ñuy dem élection yi euh, lu des dix jours daf ma daf ma dafa jokkoo ak man woo ma ñu waxtaan waxtaan nañ presque ay quinze minutes ci waxtaan bi expliqué nañ lu bëri wan na ma teg ne sama liste neexu ko benn wan na ma ne ci yow tamit maanaam ko waroon naa ko tàggu ba muy def liste ñaar ñett bi mu sàkk woon ñu gisee avant samedi mooy maanaam avant dimanche campagne bi ma ne ko am ah, mag est-ce que ko def maanaam après campagne bi mi ne ma non il faut qu'on parce que dama waroon voyager pour quatre jours au Maroc ma waroon ñibbisi le mercredi enchaîner sama point de presse dimanche bi si topp la waroon commencer campagne ba mu ñëw ba ma ñëwee man maa def exprès. bañ woo ko bañ ko def signe comme ni ñu ko bëggee woon parce que gis ko woon nekkul ne intéressé wu ma mais politiquement mënu woon ñu gisee parce que lu mu def ñenn ñi mooy maanaam gisee yow toog ak yow foto yow ñu foone ne li nga ñàkk pour dugal ko ci caution li nga ñàkk pour def say say campagne préparé ko ci ay bulletins yëpp maanaam mu ne fuus xam nga loolu maanaam mooy ñàkk woon ma jox say militants mais tam maanaam ñàkk woon ma tam jox sénégalais loolu man nekkuma ci. ci coalition présidentielle laa bokk te ci laa bokk ba tey yàlla dafa ma def noo xam ne man fu ma bokk du ma gedd di fa génn mais damay toog ci biir xeex li may xeex te dama bëgg ngeen jàpp yéen journalistes ak yéen sénégalais yi ne ba tey maa ngi ci coalition présidentielle Bassirou Diomaye Bassirou Diomaye maanaam mooy Sonko mooy Diomaye boobu maa ngi ci ba léegi te tey laa ci sax te dama koy firndeel di ko féddali sénégalais yi mais ci biir li may xeex ci biir laa koy xeexee génnuma ci biti ko xeex bu ci njëkk. Ousmane Sonko daf ma yitte woon ma dugg Pastef ma jox war ma Pastef jox war ma kilifa Pastef jox war ma sénégalais yi ba nga xam ne mënumaa dugg Pastef nit di xeex panafricanisme man may xeex nationalisme te ñëpp xam nañ que ni même bu dee maanaam sur quatre-vingt-dix pour cent idées yi dafa converger mais sur dix pour cent war nañu mën a xam ne idées yi am na yenn différence te li ci différence nag mooy li gën a vital ci Sénégal vital bi mooy espace su sénégalais yi ci biir Sénégal bi bi mooy importance su de séjour ci biir Sénégal man andiwuma mbiru carte de séjour Sénégal Sénégal moo dox ba egg ci carte de séjour parce que dañoo subir li ñuy wax maanaam benn remplacement boo xam ne c'est un processus d'autres peuples yu war a ñëw remplacer suñu peuple sénégalais te man loolu duma ko seetaan Sénégal bi ba sëñ Touba di ñàkk di tuur deret di bind pour sénégalais yi moo tax ba ko Alaaji Maalik doon def pour sénégalais la. ba ka bàyyi ñes doon def pour sénégalais la kilifa diine yu fi jiitu yëpp xeex avant euh, république di am sénégalais yi moo tax ñuy xeex kon li ñuy xeex nii maanaam pour suñu alalu tey la mais tam suñu alalu génération yi ñëw te naafeq yi taxaw ne dañ koy arrêté dañuy nax seen bopp parce que man merew ma leen na li ñuy xeex pour seen doom la ñoom ñoom naafeq yi pour seen sëti di ñoo la tamit ñoom naafeq yi li wóor ba wóor mooy lu indi lii yëpp mooy nanguwuma